Saint-Louis ca Ziguinchor foofu nag moom ay jéego nag la ñu fay am ak kon ngir nag xeex wàllu ndóol gi nag projet bi ci taxaw nag mu jëbal kon ñaar fukki moto nag seen ay partenaire nag ndaje mi kon ñu ko amalee rek ci diwaanu Ziguinchor ñoo ne ci ak Cheikh Tidiane Cissé ci ndimbalu Kaba Cissé service déconcentré état bi ONG yi ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñu ngi jàppale projet d'appui au développement rural ci biir Casamance ci intervention bi ñu ci wàllu mbéy mi ñoom mën nañoo jàpp ne am na yenn bu diis bu seen kaw activités yi nga xam ñu ngi koy def ci bi dina gën a yomb tey jii ndax lu tal ci ñaar fukki moto yi nga xam ne PADERCA baaxee na leen ko communauté rurale yi ñu war a couvrir yëpp ci gox bi mi ngi nekk juróom benn fukk ak juróom ñett bu ñu xoolee am na yeneen juróom yeneen fanweer ak juróom benn communauté yoo xam ni amuñu fa ay agent ñu xool Euh, ci gox-goxaan yi ñi nga xam ni seen liggéey màcc na ci loolu pour ñu mën a gën a jàppale baykat yi donc ci cadre boobu ci la ñu ne donc nañu gis euh, li ñuy wax OCB yi pour que ñu mën a jàppale baykat yi pour que vraiment mbay mi gën a dox fii ci Casamance. donc dañu joxe moto yi pour que ñoom au moins seen déplacement sur le terrain. mën a yomb. initiative bi ni mel te ex coordonnateur national bu projet bi Moustapha Bodian mi nga xam ne génn na àdduna jëloon ko ki nga xam ne moo ko remplacé deful lu du rafetlu ko tey di ñaax ñi nga xam ñoo ko jot ñu mën ko jëfandikoo ci nu mu waree. ñoom ñooy dem di faral di dimbali nit ñi ci vale yi vale yi nag foofu la ñuy béyee ceeb ñoom ñoo leen di dimbale ci maraîchage bi jigéen yi yuy def maraîchage ñoom ñoo leen di appuyer di leen di encadrer amul fenn foo xam ne bind nañu ci projet bi niki relais yi war nañu am ay moto maa ngi euh, vraiment gërëm coordonnateur national feu Bodian Moustapha Bodian moo xam ne moom moo taxaw ne euh, relais yi il faut ñu am moto. ñi nga xam ne nag jot nañ ko ci seen bopp rafetlu li ni mel te it wane ne rek tey jii dinañ def seen kéemtalaay kattan bi lépp lu nga xam ñu ngi koy sént ki ñoom mu mën a nekk li bu amee dinañu wàññi baax a baax ndóol ci biir Casamance.